sëñ Mor Gueye diwaan si la léegi kuy xëccoo place ak kuy xëccoo concours ak kuy concours indarme enam wala gendarme wala diwaan wala bac wala BFM xeet yu mel noonu ñëw ci yow bëgg ci ndam teel a ñëw loo ko mënal. lépp loo xam ne yàlla dafa dogal doomu aadama di ko xëccoo. waaw xam nga seex euh, boo xooleel tax wax naa la ki téléphone ne la dama koy waxaat fi tegtal ngay dégg. Mm-hmm. fenn la jaaraat muy wal fajiri. Mm-hmm. te yaakaar naa maa yow kii. Mm-hmm. nee naa la du ma ci beneen seen di toog di wax. Hmm. Tektal TV Walfadjri partenariat la xam nga tax xam nga tax ma wax la loolu. Hmm. bi ma jaaree Tektal ak léegi damaa mu jot ndax ku ma jëflanteel jëflante war na ma ak yow. Hmm. te lan laay doyee junni doomu aadama. moo tax boobu mënu ma xëy ñaanal ñaar fukki nit mënu ma ko. dañu waxante dëgg. man sama kër sax tegu ma kenn koo xam dama lay def loo dara ndax bëgguma kenn lekk alal jàmbur muy jaar ci muy jaar ci man bëgguma loolu. képp koo xam si da ngay ñaan lu it man boo yàkkamte ba lu neex xool kaneen demal xool ma pare ci sama rob defal la li nga bëgg soo yàkkamte demal ci kaneen noonu lay doxe hmm. ndax doo ma jox sa xaalis mukk ci àdduna ndax tey gis nga tey problème yi li ko waral tey mooy su la kii joxee deux cent mille hmm. kii jox la cinq cent mille kii jox la un million kii jox la un million doo tal man nag li may bañ mooy bëgguma lekk alal jàmbur bëgguma lekk xaalis jàmbur hmm. te tey tey tey fii ñu toog tey tey tey tey laax man mm-hmm. su doon am naa ci dogal tey Macky Sall mi ngi doon président mm-hmm. bépp sëriñ bu ne ci Sénégal su ko mm-hmm. neexee na tàmbalee ci man su ne maa la waxal li nga man li nga mën nga ne mënoo ko li ma mën ko wax te bu ma ko joxee danaa ko def su na loolu nag état bi moo ci war jël ay ay ay ay ay ndax tey sàcc jël alal jàmbur da dañuy dañ ko jël daw ñi bàyyi ba borom dem ñu làqatu jël ko nit boo la ne dama bëgg nangam nga ne ko nga ko mën naa ko pare jël xaalisam lekk ko naa fekk la sàcc la mm-hmm. loolu état da cee war a wax mm-hmm. mooy sëriñ si jubul si moo tax ñu bare ngi wàcc ku ko ci yoon ah gars yi am na sëriñ suñuy tëj kasoog lu ne ngi am de lu ne am mais jubadi moom waaw ah, léegi yow boo ne mën na maa mën na nit du dem kaso ba pare ngay dem kaso dem kaso moo tax jub jub mooy lépp daal jërëjëf sëñ Modou Guèye Diwane Sylla léegi ku bëgg bayra bu saf sapp nag bayra ñi di ko coow conteneur yëpp wàcc. ah bayra waaw ne nga yor nga bayra bu doy waar sax nga rek. Ah, xam ne bu dee góor nga. waaw. mais ah, ragal nga am ak jigéen ñi jafe-jafe laay ragal. nee na boo xam ne que bu dee góor nga moom day ragal nga am moom pour jigéen ñi dañ koy topp comme weñ ba man dafa am problème. xam nga bayra. waaw bayra boobu kenn lay toj wala dara du ko toj. Ah, am na lu koy toj. am lu ko toj parce que am ñoo seen bayre day mel day ruus quoi xam nga sëriñum ñaankat. waaw bayre bukki baaxul ci moom. bayre bukki baaxul ci moom. bayre moom am na yooyu mbëri làmb yoo ko moom wala waykat yi xëy na. Euh. mais sëriñ moom bayre bi mu war a am mooy bayre. résultat bayre résultat. waaw sëriñ sax jot ngay sangoo bayre. Hmm. yow del defal nit ñi ñuy gis rek. dina résultat di am rek mooy loolu de. résultat mooy bayre bi gën a gaaw. Hmm, hmm. waaw sëriñ moom résultat mooy ne Sénégal moom dara mënu fee nëbbe. Hmm. bis boo mënee li ngay def. waaw. Ah. ñu bari danañ la xam. Hmm. man yaakaar naa bi may wax ak yow ay kilifa xam xam ma fi ci réew mi. Hmm. nga am ci loolu leer yow. xam naa ci na ay ponkal. ay nag ñooñu ak ki may jox cinquante mille la yemale. man yitte yëpp laa yemale aajo yëpp laa yemale. dawalu benn aajo aajo bu ñëw rek réyal naa ko. sëñ Modou Guèye diwaan si la bayre bi daal kon ku ñëw nga defal ko ko. waaw bayre bi képp ku ñëw mais lan moo tax nga ne góor euh, jigéen ñi ngay ragal mu sonal ko te jigéen waxoo góor ñi sonal ko. même jigéen boo ko sangoo góor ñi dana la sonal. ah kon jigéen ñu bàyyi xel jigéen bu ko topp bu sa bu utiliser bayra boobu góor ñi dañ koy sonal. maanaam bu dee góor la sax xam nga télé dama ci xaw a ragal di wax yenn yi. waaw. am na nu ma la ko joxe ne la dee ko ni sangoo dana am foofu dana ne la fexeel ba bu ko saafara si laal. waaw. rafet naa njort ne bu ko saafara si laalee. waaw. ah danga def loo xam si ni day. fan la bagage yi ngay ragal mos. <laughs> ah sëñ Modou Gueye dégg la ah kon kay ne ko diw rek bu dee sàmm dafa am fu mu yem kay booy. waaw xam nga. <laughs> sëñ Modou Gueye dégg la mais jigéen itam sax nga ko wax foofu bu ko la am. nga man daanaka li may jëflante ak jigéen sax bariwul. Ah. ndax jigéen ñi dañoo taxit. dañoo taxit. bari na sëriñ su bari su juba di jigéen ñi leen ko yóbbee. Mm-hmm. mu ne na sëriñ su bari su juba di jigéen jigéen ñi leen ko yóbbee. xam naa ne da ngay moytu. moytu bu baax li may moytu moom li ci ëpp jigéen ci la bokk. Hmm. yan yàlla musal ci pexe jigéen jigéen bu baax nag moom yàlla bu ci yàlla musal kenn ndax yéenam bu rafet mën na laa jëriñ. mën na laa góor bu bon yàlla na yàlla musal ci yéenam ji bon parce que mooy loolu. fi ne nag. Euh, hmm. ci réew mi toll. waaw. ah nit ñi day jot na sekk ñu xoolaat seen bopp. Hmm. ndax yàlla sakkut nit. ndax yow fi ne li nga xam ne doomu aadama yi dañ koy def sax mm-hmm. Mm-hmm. ñi nga xam ne yàlla da leen sàkk sàkk leen xel sax duñ ko def mm-hmm. nit ñi war nañoo xalaataat bu baax delloo si seen xel léegi mën ngaa fay coow lu bari topp mu bëgg nit ñu wax la leen bàyyi seex boo yore leen eh, xaalis mm, ku am na yoo xam ne kenn du ko wax kon ku yoreel bor fii ma toog di wax nii Serigne Sutura. Serigne Sutura. Serigne Secret. Serigne Secret. mais réew mi ku ne xam ne nga amel fi nit 40 000 sax moo hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi may dégg bu baax xam nañu. ah dana yore lan bor. na ñu fi yoreel nit 100 millions ginnaaw ba yàlla wéyee. waaw buñ demul kaso maa tax te ci àdduna duñ dem kaso. duñ dem kaso mais ba dinañ fay tam. danañ fay waaw man ku may wax dama naan la la ko fay. na ko fay hmm. dégg ko. moom man naa jàppale kii yore bor. li ci waat tamit li gën a gàtt. waaw suba suba bu la neexee yow man maa la ko wax. Mm-hmm. soo gisee ku kuy wuyu ji yoon. waaw ne na ñëw ma jox ko mu dem. mu dem buñ ko téyee. waaw lu sama askan tax soo suba laax. waaw soo boo gisee ku war a wuyu ji waaw man maa la wax loolu man sëñ mm-hmm. suba boo gisee koo xam ne dañ ko woo gendarmerie. waaw diggante mu nag mu tooñ mu ñàkk tooñ. waaw dem dana ñibbi si te kenn du kenn du ko téye. wala ko bëgg a téye kenn du ko bu la neexee may naa la ba vingt personnes ngay def ba am vingt personnes looy def nga def ko def. Mm-hmm. indi vingt personnes la neexee dama ci laaj kenn dara. Mm-hmm. ay ñi ñi ci kaso mën nga leen génn ay genre Papito Kara ak euh, mouvement kàcc kàcc. waaw ñu tuddati euh, Ousmane Diagne xaw ma. wàllu nit ci kaso nag. waaw waxoon naa la ko nee naa la am na sunguf bu ma ci daan defar waaye dama ko amatul léegi. dama bi ma ci amaat mu wér wàllu course la dafa dafa metti dafa metti dafa metti hmm. mais yow daal dafa mel ni fexe nit ki bañ a dem kaso ci gën aay sax ci génn ko. bañ a dem kaso ak fexe ba kenn du fexe ba kenn du ko atte ah, ñu bëgg ñu atte leen fa. xam nga na ñoo xam ne xam nañ ne liñ def bu leen atte dañ leen tëj ah, dañ leen fa bàyyi rek fàtte fa fàtte. Hmm. xëy rek baal leen. doo ko defal rek ba ko noonu rek ñu rek. Hmm. kaso daal. Hmm. am na ñu ma ci xam bu baax a baax mais léegi tamit comme da man damay d'accord tamit ña toujours ñaar yi dañoo am ay homme de tenue yoo xam ne tamit ñoom it jàppaate mooy seen mbir léeg-léeg nit ñi ñaan wuti la ñoo it ku ci bëgg kaaraange gu wóor ba pexe nit ñi ñu mën ci mucc mën nga ci dara wala. Cheikh euh, wàllu kaso. waaw li ma ci xam dafa bari. Hmm. li ma ci manit bari na. Hmm. la ma ci waroon daal def naa ko dem naa jàng xam-xam bi. man nag nee naa la ginnaaw ba yàlla wooyee lu ma xam sama sëriñ sëriñ Modou Kara Sylla la moo la. ci li nga xam ne dafa baati ne mm-hmm. yëpp nag wàllu garab ak. suñu la Daaru Muxti. waaw Ousmane Sonko ay mbiram Daaru Muxti. te léeg nga dégg ñoo Ousmane Sonko ba muy tudd bëgg nañ ko jàpp wala yu mel noonu yow mën nga koo aar fa nga lu nga xam ne kenn du mën ci moom dara pour nga xam ne sa participation lay doon ak yéene. waaw Ousmane Sonko. Mm-hmm. man jàpp naa ne aar na boppam ba noppi. aar na boppam yàlla aar damay bañ nag ñu yaakaar ne da ngay politique. da ngay politique de ñun Ousmane Sonko dëggantewul gisantewul këram mun ñu laa xam sax. ndax lim aaree boo ba pare mooy. Hmm. ah ci sama man dafa jub. jub te jub rek mooy gàllaaj. man jub nee naa la première xam-xam mooy jub. jub. waaw. Hmm. Hmm. Ousmane ko nag ñun dañ koy ñaanal yàlla musal ko. yàlla musal ko. te Macky Sall mi nga xam ne it mooy président. Mm-hmm. mu bàyyi xel ne 2012. Mm-hmm. askanu Sénégal dañoo àndoon ak moom. dañoo àndoon ak moom. Ah, dimbale ko ci lu bari. Mm-hmm. kon tey am na loo xam ne waru ko waru koo doxale tey adduna nag loo fi gis day am njiit. yàlla sax. adduna bi mu def na fi ay njiit. am ñoo xam si ñooy gindi nit ñi. di leen wax lii ak lii ak lii. kon daal président moom bu ko yàlla dimbalee mu nekk fi njiit. Mhm. ginnaaw njiitam googu am na ñu bari ñu nekk ci suufam. Mhm. na fexe te dañ ñaaxaanaay. dolli yërmande bi kenn ku nekk. Mhm. bët bi muy xool doomam Amadou Sall. mu di xool bët boobu. nit ñi tamit ñu yaru. beneen bi tamit ñi koy conseil ñu am. ndax man tey nee naa la àdduna du yàgg ba ma toog saaga Macky Sall. bu ma amee lu ma naqari moom saw kayit laa koy fajee ndax jàpp naa ne. mat na ma bàyyi. waaw wala mu mat ma nijaay. Mhm. ak lu mu mën a doon xaj na. président ah, bu naqar soo kër nga koy fajee. Mhm. lu ma naqari daal saw kaart laa koy fajee. Mhm. waaye du ma toog di saaga. wala may dépassé. du ma ko nëbb nag. ndax lu ne ci xol rek feeñ ci kanam. Ousmane Sonko laa àndal moom laa bëgg. Ousmane Sonko nga àndal moom nga naa lu ma nekk dama ci jël engagement. jaaw kër moom laa àndal non non Sonko de man lenn rek daf ma neex comme li nga wax nii ci njub. Ah. man bëgguma ay valeur ah. dem ba am fu agsi te valeur yooyu Euh, nit yi war koo suuxat kooku bu amul ndam ci lu muy wut rek waxuma mu am ndam buy war ne dañuy politique di déedéet mu am ndam mooy jub googu war na koo jëriñ ba ñëpp yëg ne jub am na njëriñ ngir ëllëg tamit ku jubadi tamit jubadi googu am ay daan yu tege ci kawam ba ñëpp xam ne ëllëg lii di waruñu ko def. man nag euh, ba ñu ma Macky Sall. Mhm. ndax muy Sonko muy Macky Sall sama ceeb sama ceeb buy tooy kenn tooylu ko ci. kenn tooylu ko ci sama liggéey guddi gi boo yor course yi mais man amu amu problème nee na la amu problème mu xaalis. Hmm. réew mi am na fi nit ñu sonn seex. nit ñu sonn hmm. nag tool taxaw. macha allah kon daal kaso moom euh, sonko bu la déggoo loolu du fa mos dem. sonko moom du dem kaso. Hmm. du ma ne nag man maa ko fay tey dem. ndax man daq naa leen. maa ëpp xam-xam ci àdduna kenn du ko wax. mais dina mos a doon président de la ci wax ndax xaw ma ci dara. xaw ma ci dara. dëgg yàlla bu ma la ci waxee. wax ci lu dëgg tam même bu ma ko xamoon du ma ko wax. doo ko wax ndax man li ma li nga xam ne dama koy gis. Mm-hmm. ci lu deme ni wàllu course wala dara nekkul loo xam ne dama koy wax. danga koy wax waaw macha allah sëñ Modou bu ñu jógee ci boobu nag kuy wàllum sëy mitan tegtal ngóor góor boo xam ne que ci wàllum sëy feebul na ak góor boo xam feebul mais doyalul ci wàllum sëy ak koo xam ne que tamit euh, dafa nekk mag maanaam âge boobu bëgg na takki xale soit euh, te doyalul. xeet boobu ci wàllum sëy loo ci mën. àll ba nga ma doon gis daal am na fa gan garab goo xam ne buñ ko wutee. waaw. ko defaree nga boole ko yàpp xar togg. àll mhm. bu dee mag nga. bu dee mag la. Mhm. ah li sëyal de dina yàlla bu mu yaakaar ne dangaa delluwaat ci ndaw. ndaw te boobu du doon ay garab la garab la garab mhm. la. man du ma man su jox nit ki lu leer laa koy jox. boobu da koy topp à vie nguuru dund ko. loolu danga ko boo ko lekkee dangay ngay delluwaat fa nga ne da ngay wér rek. ak lu ko mënoon teg ci faible bi. waaw parce que am na xam ne dinañ seen faiblesse. dañ koy xool nag ba pare xam nga. Mm. feebar tey. Mm. bu mën a doon da ngay xool ba xam nit ki di ko daal ba pare. Mm. d'accord man ne naa la ba ci seet sax. damay seetal jigéen sax. bu tollee ci pareetam sax dama ne ko yaa ngi ci sa pare. ndax. doomi gisaane yooyu doom bu ne am na noonu bu taxawee rek da ngay xam la muy wax hmm. te la muy wax bu dee dëgg la nga xam dëgg dëgg gisaane du la nax li mooy xam-xam bi gën a garaaw ci àdduna hmm. ah man boog sama xam-xam ndax man hmm. daf ma man mi koy def sax daf ma daf ma jaaxal d'accord kon daal ku ñëwoon ci yow soxla wàllum euh, ngóora pour bëgg dootu ko traité fenn da koy dijjante mu jeex mu wax yeneen soxla bu ñëwee ci yow du yàgg mu jeexal soo ñëwee de incha allah. suñ la xoolee ba xam dina ci yow. am na ñooñ nag liñ bëgg amul fenn. liñ bëgg amul fenn. waaw lan lañ bëgg. am na ñooñ xam naa télé bee tax man am na sakkuma bëgguma di ko wax. Hmm. nga sëy. Hmm. da ngay sëy rek bëgg a jëmale fu kenn xamul. am na seen xel moo feebar. seen xel a xel yi lan war faj ba pare. xam naa ñi muy wax maanaam tey mi ngi mel ni ñi xam ne que sëy moom defuñu ko pour sëy nii rek. mais parfois seen sëy dañ ciy dugal xaalis xaalis boobu ñuy dugal nag la ñu jàppale mer mer googu nag dañu bëgg fayeku ko ci sëy bi comprendre ngeen ngeen dégg daaj mooy kii loolu quoi façon yu mel noonu wala tamit ñu dajeeg jigéen boo xam ne que tëkkonte bi day doon ko xaw a bon koo xam ne que maam daal doonatul bànneex mais rayante liñ ci jubli ci ñoom ñaar ñëpp léegi moom nee na li mu bëgg amul fenn ñooñu lay wax la ah, ma rafetal ko noonu jeex na mais jigéen bi nga xam ne que dana mënul yëg bànneexu say mukk kooku mën nga ci dara. waaw loolu day aw ma xam-xam. aw waaye am na xam na. ku ko hmm. xam ku ko man ku ko mën man aw ma xam-xam. xam-xam jeex na te ku ñëw nga jox ko kooku. nga boole ko kooku boole ko kooku tamit am naa wóolu teg boole ko moom. Hmm. léegi ay kayit nag ñi nekk bitim réew bëgg kayit. waaw bu dee kayit ak ku bëgg a tukki ak ku tukki nekk fu bëgg tukki bi neex ci moom. bu fekkee da bëgg a tukki. Hmm. tukki am na loo xam ne ñu koy liggéey ci tàggum segal. tàggum segal mu ne ci guy mu nekk ci guy waaw buñ la ko liggéeyale bu neexee yàlla bépp ambassade boo teg passeport mhm. yàlla mën nañu cee dimbale nga am li nga bëgg nga am li nga bëgg am na it yeneen yoon yoo xam ne ñu koy def yàlla dañ ci dimbale mhm. léegi ku fa nekk nag bëgg kayit légal ca réew ma ku fa nekk te bëgg kayit buñ jotee ci sa tur waaw xam nga tey yenn secret yi daf may neex rek ma di ko jël mhm. mais tur yàlla yi nga xam ne moom ba ma doon dem sëñ Muudu ba léegi ci laa nekk lu ma ci bëgg am na it xam-xam nag yoo xam si ci loolu lay dox. Hmm. kër wut ay kayit. pour ay kayit ak ñi nekk bëgg permis bitim réew yëpp kayit daal la. européen yi daal la ma la waxoon rek. Hmm. sama jëflante ak ñoom dégg nga ko yëg nga ko. yëg naa ko seen seen alal laa gën a ragal. Hmm. seen alal nga gën a ragal seen alal laa gën a ragal ndax am na ci ñoom nañ def ba dem dafa metti dafa metti ndeysaan foofa dafa metti nit ñi jàpp nañ ne neex na waaye neexul. Eh, la fa nekk gars yi te sëriñ si parfois boo wootee Europe. d'accord naa côté boobu man amul problème quoi parce que ñëpp xam ne ku nekk Europe même boo jënd sax fii Sénégal ni lay jaay bokk ak ni ñu koy jaayee Sénégal d'accord amul problème booy woo pour wax ak moom sax euh, ni muy jàppe ku nekk fii ak ku nekk Europe ba léegi bokkul d'accord sax boobu bu leen yàlla defal nangu leen ko moo tax tamit sëñ bi faaw mu laaj la lu mu laajul di jënd rek ab singom sax tam jaay la ko lépp li bi jar moo tax am na ñu nekk Europe léeg-léeg dañuy wut numéro Sénégal yor ci beneen na fii la nekk yooyu da leen sonal de jaru ko nekkal Europe rek def dëgg yàlla gis nga am na ñoo xam li ñu def ci ñaan li ñu doon def ci ñaan defatuñ ko te lan doon am amatuñ ko gis nga sëriñ si léeg-léeg ñu yóbbu sa ay sax baax na yow yewul rek te tegtal daal leen bëgg ku koy seetaan ngay continuer di gën a yew di gën a ànd ak xel bu baax a baax baax a baax sëñ Mor Gueye diwaan si la léegi Effenberg yi ci dëkk bi nag bëgg sëy mu tëleen ñi nga xam ne dañu jàpp date mariage fu ñu jàpp mu tëleen waaw am na sëy ñi ma ci defal ñu sëy day bari borom kër léegi waaw pour ñu bëgg am borom kër ñi ma ci yàlla booleel ñu am borom kër. waaw bari na. bari na waaw. Hmm. Hmm. xam nga yooyu xam-xam yooyu moom seex daanaka bi ma koy am dafa yàgg sax wax dëgg yàlla. dafa yàgg yooyu moom. Hmm. bi ma koy am ci sama sang bu tedd boobu di sëñ Modou Kara. waaw dafa yàgg. incha xam nee naa la li may jëfandikoo lépp lu mën a doon rek jëfandikoo naa ko ba xam ne lii lu wér la. Ah, waaw. a Euh, léegi wax Bayra pas Bayra nit Bayra Njaay nag. Bayra Njaay. waaw. yoroo. maxu guy. maxu guy. bu ko nit ki amee. waaw. am na yu ñu koy booleel bu ñu la ko defaralee. waaw. soobee yàlla di nga ko am. ba guy am nga ko parce que am na ñoo xam. am naa ko am ko buñ buñ déggoo nag. waaw. na bayre boobu ma la ko joxee jox la lim limu turbo ah, de. dina jaay ba doyal de. kon ñi nekk bitim réew di jaay yëpp bu nu amee loolu kii ko loolu lu ne wis la wala nu muy demee démb laa ci mujjee yóbbante bi yóbbante boo xam ne si ni ki ma yóbbante tegtal na ma xame mm-hmm. jëflante nañ jëflante te jëflante mm-hmm. soxna may Jóob dégg nga ko kon mm-hmm. naa la damaa am fit ci wax ci lépp lu bëgg a wax waaw ndax nee la ba fi ñu ma toog ak yow nii bu doon woote am na laax neex wooteel. mais ñaareel tegtal matériel comme raw ngeen da ngeen am matériel gis nga li ngeen di def bu pare. waaw bu ngeen fexee ba segg tapalekat yi ñu jaar ne. waaw da ngeen am li ngeen bëgg ngi koy segg ndànk la tapalekat yu bëri nga wàcc D2. waaw xam nga fi ne am na sëriñ soo xam ne ñu may seetaan. Hmm. am na day ñëw sax ci man doon sëriñ bëgg maa dugg lool. bëgg laa dugg lool te du yomb. mais du ma la ko may man nee naa la toujours maa damay sóoraale nga nekk ci looy def lu ñu may yabe man na xam naa xam naa ne def lu may lu ñuy yabe kenn ndax du ma séq kenn lu may def leen loo xam ne su ma ko defee dana la ci yab masha Allah sëñ Modou Gueye Diagne Sylla non dinañ dem Europe nag defi ci émission nag ah dem émission soobee yàlla incha allah parce que ñun euh, suñ mbir tegtal mooy duñ bëgg sëriñ di ak fu sëriñ di am lu ne sëriñ du am sens interdit ci lu baax. Ah, man daal sëriñ àgg fu ci kaw ci kanam. man daal seex li ma mën a xamal te man la ko wax mooy. Mm-hmm. métti na nag ndax xam nga boo amee xam-xam sax. Mm-hmm. bu la yàlla dénkee tuuti. waaw da dem ba lool da koy ragal doo ñemee wax yenn wax yi. Mm-hmm. man dama gëm ne bool bu def sax du yëngu. du man daal. ak lu wax ji bari bari daal sant naa ndax sant gi mooy. xamante nañ ay at maa yow. ñuy wàcc sunu gisee. ba sax ba sax li gën a garaaw sax. Mm-hmm. def naa ko soo neexee bala maa dem ma woo ndaw si jox la ko. Mm-hmm. tegtal la ma xamee ne ma sëñ diw dafa lekk sama xaalis ma woo sëriñ boobu ne ko delloo diw xaalisam. waaye fa ma ko jaar nag jaaruma ko ci dara sama tur. Uh-huh. te ma ko jaar delloo na xaalis ndaw si. parce que rasulilah loolu kontaan na seexul sëñ bi delloo xaalis bi. delloo na xaalis xaalis ndaw si ndaw si ba nii may wax ak nii nii ci émission lañ nekk ba ba nii ci ma woo ko jox la ko. non sëñ bi foo ko jaar amul loolu ay code la. Ah, loolu ay code la loolu ëllëg nga jaar fa beneen sëriñ loolu ay code la. non ay code la tey beneen sëriñ bu mu mën a doon danaa la fa jaar te coow doom. Hmm. mais xanaa da nga ci raxas baatin te wala. Ah, non du baatin jub jubal rek. <laughs> jubal rek te loolu moom kontaan naa ci parce que man am na benn sëriñ boo xam ne que évalué eh li may kalaamee ak moom. moo tax moytu leen sëriñ bu lay wan wale su xaalis naan la lii laa yor ci xaalis ak yooyu ngay bëgg lu yomb client yi tamit il faut ñu waxante dëgg. am na ñooñu bëgg lu moo leen tegi coono ku la jox ay millions ne la indil 6 ma defal la ko 12 waxul dëgg ku la ne indil 5 ma defal la ko 10 waxul dëgg indi 4 ma defal la ko 8 waxul dëgg am na ci loo xam sëriñ bu la ko wax yow yaa war a yeewu seetlu nga dof yi ngay gis ci mbedd bi sax boo xoolee xaalis la ni ñaan xaalis ñi ko soxla doon bëri il faut ngeen ànd ci ak sérieux bañ a topp def nañ tout pour yee leen tamit mais il faut ngeen yeewu quoi naxante bi booy dugg ci yenn yi bu ko xam mel yow kese boo amee ñett ñu ko xam xëy na dina la euh, am tuuti saafara quoi mais di nëbbatu bañ kenn xam yaay du xam jëkkër du xam maam du xam kenn du xam nga dugg ñu tëj la fenn da ngay dem ba boo ko waxee sax déli bi mu doon moo gën a garaaw li sëñ bi def. an leen xel tuuti quoi dem ak xool sëriñ si sérieux sëriñ boo tooñul bu ko ragal sëriñ boo nekk ci ah. foofu dama la fi indil xam nga dama wax léegi ne la. Mm-hmm. am naa koo xam ne gannaaw ba yàlla wooyee euh, cent et quelques millions. waaw. ginnaaw ba yàlla wooyee demul kaso. waaw maa tax. maa tax xaj na nag man naam du ci man dong la yem. Mm-hmm. waaye ba mu dawee génn Sénégal daal maa ko woo ko foo mën a nekk ba fa fanaan. Mm-hmm. boo ñëwee nga wuyu si bu mu wuyu jë ba mu demee takkusaan ko dama mm-hmm. ma seetaan. bu dee damay fenn na ñëw na ñëw fii ne la. Ah. Ah, point bi ma lay waxaat. waaw kooku mi ngi dajeeg sëriñ yooyu ñuy wax jëma koto. xam nga jëma koto. ay sëriñ la yoo xam ne dañ lay liggéey mm-hmm. loo yor jox leen ko sëriñ si ci internet bi nag am na ñoo xam mënuñu na moom bu mënoon liggéeyal nit sax lu mu gis ñoom dañuy liggéeyaate waaw am pour nga jox leen xaalis pour jox leen xaalis ndax ak seenum jub mayu leen mayu leen liggéey nit pour seenum jub maam agut ci ba ñàkk a liggéey nit pour lekk alal xam naa xam naa sëriñ yoo xam ne mm. ñoom mm. pour lekk alal jàmm li ma lay wax nii nee naa la suba suba bu Macky Sall defoon décret. Mhm. ne Serigne si ñaan Serigne si bon wuy si. dana am Serigne soo xam la ñuy lem seen i kurus daw daw laqatu ci. la ma sant rek lu ma sant dama mën mhm. ma defee dana sotti. Mhm. Serigne soo su ma lay wax. waaw bu la. am sax sama yaram bi boo demee ba dëkk bu ñuy wax euh, Sédhiou am na dëkk bu ñuy wax Jamakoto. Jamakoto ah. ñu booru Sédhiou. Mhm. ñooñu dañuy takk nit. waaw kii ma lay wax nii façon nit ñooñu la yoroon ñu dóor ko cent trente millions. Mhm. mu dem ba jël alal jàmbur di ko joxe. nit ku baax nag sama xarit. Mhm. moo tax kon yenn sëriñ si def ñoom attention baax na. mais ñaan daal yàlla musal la sax ndax kooku sax la la côté sax du ay sëriñ ay nit la dimbale. di dimbale ndeysaan dimbale nit ñi nit ñoo ñoo ko peese ba yóbbu ci ci maara boobu maara def ko lu ñu koy def ndax Dakar fii lu ne fi. lu ne fi nga yow de. Dakar ne fi. lu ne fi. man daal seex. kontaan naa. kontaan baax a baax. maa ngi ñaan yàlla. barkeel. barkeel lépp. amiin. Euh, xam-xam dafa yaatu. Mhm. may wax sëriñ sëpp na dem jàngi ko. alal neex na. waaye ju sax te continuer ku gën. moo naa fekk na damay dégg ñaan am na tàmbaliment waaye amul tàmbaliment amul amul yem waay. amul yem waay. dañ naan ah triant de am na tàmbaliment. Hmm. amul tàmbaliment amul yem waay. Hmm. amul dara. heure bu ne mën nga cee dajeeg sa bis. Hmm. xam-xam daal coow lu mu rëy rëy mën nañ koo fay. mën nga koo jigéen lu mu naqari naqari. su jaaree ci seen loxo yàlla mën nañ cee dimbale ñu àndaat. Mm. kàttanu yàlla. ci kàttanu yàlla waaw. Mm. wàllu xaalis nag. Mm, am xaalis sax mën nañ laa defal ay ubbeeku. ay ubbeeku mais am na fi ñaari xeeti xam-xam yoo xam si moom. dañuy tànn at yi nga am. at am di nga am 40 ans. Mm-hmm. na boo xam ne 37 ans. 37 ans boo si jëfandikoo daal bu neexee yàlla. Mm-hmm. ah di nga yor te du yàgg. maa ngi toog de am na ñoo xam ne de xam nañ ma bu baax. Mm-hmm. ginnaaw ba yàlla wooyee euh, seen million ci man la jaar. fii ma toog ma la woon mu ne la woon ne nangam laa soxla ñu hmm. am na ci xam-xam yooyu nag daanaka. mais lan moo loolu pare di am looy soxla. waaw am na loolu sama am na loolu sama am na loolu samay at àggagu ca. ah ok. comme man amaguma 40 ans. comme naa lay wax maanaam yéen yi sañoo ko defal sa bopp daal. sañu ma ko. ok mais ñoom boo leen ko boo ko defal laaj leen ne leen lii laa bëgg ñu koy def man lu ma bëgg seex danaa danaa am seex. incha allah ba ma jafe-jafe ci lenn. macha allah na léegi euh, waxtu benn daf balaa ñuy tàggatoo wàllum kaaraange tamit yor nga ci buur de balu teg si delloo kenn du ko mën liggéey waaw kaaraange am na yoo xam ne xalima gi ñu koy bindee bantu kaani lay doon kaani ku ko laal taxoñ mm-hmm. ku dañ ko ku ko seex moom kese dañ koy àbbi mm-hmm. ci kaaraange kaaraange kon ku bëgg kaaraange daal ba duñ ko mën a liggéey ak ku liggéey kaaraange am na fi façon yu bari yu bokkul mm-hmm. na fi yoo xam ne déggi sump lay àndal déggi sump kenn doolu Mm. yow càngat yu gàtt moom baa am na ba nit ñi am na ñoo xam ne sangatu jëmale déwén la ñuy taayal. waaw man am naa càngat yoo xam ne mën ko xam nga sangat tey benn fan wala ñaar fan wala ñett. Mm. wala ju benn wala ñett wala juróom-ñaar. wala juróom-ñaar yooyu. bu mu tey bu moyee nag bayre boobu may wax nga xam ne 14 jours lañ koy sangoo. waaw 14 baatu 14 dafa am tur yàlla wu jàpp. Mm. tur yàlla woowu. adat boobu moom la ñuy jëfandikoo ca ca la ñuy defaree bayre bi. ci leen def rëdd doo ko wut sunguf yi may àndal ak yeneen ak yeneen. léegi waxtu bi dab looy tàggoo bu dul tàggatoo koy sant ak gërëm ak njaboot gi yëpp. waaw maa ngi sant. Mhm. sama sëriñ. Mhm. sëriñ Modou Kara Sylla la di ñaan yàlla mu guddal fanam. amiin di sant sama mag joo xam ne ñu bokk ndaay baay. Mhm. sëriñ Modou Kara Guèye. la. moom ngi fan. mi fii Sénégal. di sant sama xarit. Mhm. Serigne Mohamed Ba. Serigne Mohamed Ba. di sant sama xarit Serigne Ibrahima Diouf. Serigne di sant sama sëriñ mhm. sama xarit. Mhm. sëriñ Moustapha Sylla rakk Serigne Modou Kara sant sama njaboot bu baax. sama soxna samay doom. waaw am na loolu boo ci nekkee rek. Mm-hmm. sa njaboot la ciy jàppale. ñoo la ciy maa ngi sant daal bu baax di la sant it. Mm-hmm. yow mii ma jàkkaar lool. Mm-hmm. ndax sant gi mooy xam naa ci yow fulaak fayda joo xam ne su ma defoon dara lu dara fii du fi toogaat. te xam naa ne danaa fi gëjaat ndax li tax danaa fi gëjaat mooy aw ma jot. dëgg yàlla aw ma jot te xam naa ne danaa gën a ñàkk jot. ndax am na ñooñu li ñamal. xanaa ñu ñëw wax ma lu ma mënut ma boole leen ak kaneen hmm. ma ne leen mënuma ko ñu dem xooli kaneen waaye hmm. eh, li ma mën daal te di ko def daal bari na ci ñooñ moom ñu ngi ma ci ñu bari non yow koy del lu bari pour lu sëriñ yenn nga bokk ci ñu koy defar waaw man ñu baax ñi qualité li ma lay xamal daal mooy hmm. man sant naa yàlla bu baax a baax a baax masha di ñaan nag télé bi doon télé boo xam ne àdduna bépp koy dégg amiin li ngeen lal ci kanam hmm. dafa naqari nag dafa yagg ci aduna jub heure boo ko lal boo ko tegee ci sa kanam rek hmm. faaw mu metti waaye lu yàgg-yàgg rek la nga doon wax ne hmm. li ngay li nit di def ci dëng di ko am yaa ngi koy def ci jub di ko am gën a la sax ci loolu sa gën dëgër ci loolu kontaan naa yal na yàlla def càmm wasalaamun ala man tabaana huda macha allah jërëjëf sëñ Modou Guèye Diwane la Euh, comme ni ma la ko waxee liste ba ma waxoon ci bàyyil ma xel Ousseynou li Allemagne na na jëm kanam sama xarit la mm-hmm. mami d'enfant France na jëm kanam bu baax a baax Sayer Fall Espagne na jëm kanam mm-hmm. Fat Diop Amérique na jëm kanam Malick Jité Grèce ñi may tudd xam nga mënumaa max mu jàlloo mm-hmm. dama bëri nit daal bu ma bëggee lim rek day jafe bu baax a baax ah. euh, gërëm na leen ñoom Ousseynou Ly ñoom ñëpp ak mami d'enfant France ak Espagne ak Dieynaba Diabaté ñëpp ak képp ku bëgg baax daal gërëm nañ ak Wapa Soumaré bu baax a baax yàlla defal ko jàmm ak sutura gu sax dàkk ndeysaan ku baax la euh, gërëm nañ ñëpp équipe technique bi ñu àndaloon balaa boobu yoon bu mujj ci biir émission numéro sëñ Modou Kara sëñ Modou Guèye Diwane Sylla 77 872 41 94 94 77 872 41 94 beneen bi 76 329 50 99 76 329 50 99. sëñ Modou Guèye Diwane Sylla numéro yi am na whatsapp nga dis ko soxla lu mu mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi xam tëlewul dara taban na lépp équipe technique bi ñu àndaloon Mohamed docteur Wade bu Casamance nekk ci Baye Massamba Diop bu Derkele nekk ci Petit Sow bu Thiès Mbour nekk ci euh, soxna May Diop ci réalisation bi gërëm na sëñ fàllu Mbacke Diop ak su Sulux Njaay ak soxna Fat Jaxate euh, ak euh, nijaay Seexu Jaxate maam Jaxat gërëm na ñëpp Tektal TV télé tollu ko fii gërëm nañ Amadou Diawara Air ak euh, ñëpp ñi nga xam bëgg bëgg nañ Tektal TV bu baax a baax a baax ku lim juum ak ñi indi teraange Abdou Khadre Diop basketteur ca Qatar moo indeeti yi gërëm na nañ xew xewal dikk loraange dakk sëñ Modou Gueye Diwane Sylla Tektal TV ngeen abonné ci Facebook bi ak YouTube bi bés fu ruus bés fu ruus bés kulas émission bu ñëw ngeen am ko abonné doo ci fay dara kum neex nga abonné kum neex bu la abonné yaa jëf